sultaana ma am sa tumba kémbër ma sibtul am na warma. gi am sa tumba kémbër ma am warma. murid bu sell tey liggéeyal mamam ju baax ja moyor melay mbaayam ba sie sooybo foo ko figi sa xel mi dem ci rabbu ngir jaamu gaag wetel ga yàlla buurla mooma toroy ngir jub goraw na ji alibe ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen ndokkel bu baax a baax dem mbégte ci ñëw gi ñëw fii tey Mm, ci këru xasida yi fekk sunu rakk sunu xarit sunu wëlëre sunu soppe sunu lépp sëriñ Amsatu Mbàkke mm, doon na mu woote ko fii ci bokki taalibe yëpp di yëpp ànd ko moom ñu ñëw di ko ci ndokkeel di ci ndokkeel ci mboolem taalibe yëpp di ci ndokkeel ahlu xasida yëpp mm, am seere yi seere ci sëriñ Amsa mi ndax moom xam nañ ko bu baax a baax Mm, du ma ne kenn maa gën a xam ñàpp waaye ñoo gën a xam ndax ñoo bokk di jàng ñoo bokk ni jàngandoo mm-hmm. mm, lépp man maa ngi yor këriñ sama wala yoroo sama lépp falaa ko jànge falaa lépp moom mii rek yàlla def ñoo bokkoon ku ñu yor mm, muy nit ku baax nit ku jub ku bëgg lu baax ku bëggu taalibe xës de itam yàlla def yàlla teel ko ci jëme lool waaye booba ñu ngi këriñ sama sax كنا خمدا بندقي أجانجي يعني تلوت بابا نيجي خمون قوم أكمل بابا ما بسمي ساقس الدنيا رابع كده جانج بابا تي جاكدي الفنانة جانج وياه مم بتجي تام دراي ينو بند خزر يعني كنا لنجي نيو ما كنا بنا نو بند جاب منا كنا بنا نو بند خزر لنجي مقل تام جاب منا كنا بنا نو تام مقل وينو كباخ كسر لك خمدا وهرجع لا وياه جرام آمن نجوم جاكار ليه ليه منا كتاجي تهنا خمدا جاكار وياه جيتا tasut ndax li mu nekk ñun ñëpp la war muy yar jàng alxuraan ak jàngale sëñ Cheikh bu ko na xam ne lool moo doon métier jàngale alxuraan moom da ko suñu tubaab féetale te moom yi yaakaar li mu am ci daara bare na lool yaatu na lool am yoo xam ne moom laa ko joxoon ci moom lañ jàngee waaye mu boole ci nag njàngum xasida mii nga xam ne moom mooy Serigne Touba mooy lépp Serigne bi man cee sonn lool def ko itam lool di ko jàng di ko bind di ko jàngalu loolu nag moo tax saa bu lee rek eh, na ko leer ne njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ku ci ñëwutam itam yéen a ngaa ñëw ànd ko moom ndax lii muy def ñun ñëpp la war. ñun ñëpp ko waroon def waaye day doon fardu kifaaya ñëpp mënuñ ci nekk bi mu ci nekkee nag mel na ne nekkal na ci ko soññ ko te ñaanal ko ci barke maamam ci barke baayam lii mu naalal Serigne Touba ci xasida yi yàlla may ko wér ak kattan bu ko eggale ak mboolem ñu ngi ko àndal ñëpp nag mboolem ñi nga xam ne xasida ñëpp ñu ngi leen ndokkeel ci bis bi di leen ñaanal lu ñu fi jàng ci xasida lépp yàlla ko suñu ko def ko ci te yiw suñu yaakaar te ëllëg Xadim ak mboolem murid yëpp ak mboolem tari yëpp waaye ak mboolem juddi yëpp ndax xam naa ne mën naa yéwénal Sénégal gépp xasida yi fi jàng yëpp mën naa yéwén sax kon nag ñu ngi sant ñëpp ndokkal ñëpp te feddali suñu kóllëre ci sëriñ Amsa bu baax te di ko gërëm bu baax xam na leen seq xam na lu bokk waaye man xam naa ko bu baax maa ngi koy di ko gërëm jërëjëf te yàlla laa ilaha illa allah muhammadun arsalahul ilaaw bu kabbaree sa xel ma dem ca maam ja xawsul wara kada dule fa njaareem rabbi sa jiwan dugan